ah vous ba tey ci euh, li euh, euh, école Thales Africa bi Sénégal ki nga de en tant que directeur Pape Ousmane Sané Nous avons ñu monsieur Mamadou Badji directeur l'école lay Je suis lay fay di la professeur à l'UQAL,

ba mën a ñëw fii. xam nga dama ki woon pratiquement dama nele woon dama ñëw et puis am ma temps di di di di noppalu tuuti euh, mais Ousmane mu ne ma yow yaa nekk euh, sama oncle il faut nga ñëw di euh, participer ki bi ouverture bi comme gis naa kii am euh, message am euh, mané euh, ma mëna tok sans que ma ñëw même ne serait-ce que ma participer qui lancement bi nga sama jarbaat la parce que papam bu est kiiyee euh, mu il faut ma confier ma euh, Ousmane papaam dafa nekkoon suñu faculté comme étudiant fofu ma jangal ko euh, droit mu dem ba mu maîtrise am après mu commencé di préparer thèse euh, papa moo la confié Ousmane Ousmane sa doom la Ousmane sa jarbaat la mais li ma comme li may laaj sànq euh, d'après sànq li ñu la dégg nga koy wax est-ce que Ousmane pare ngeen pour jàppale ko ci li nga xam ne mooy institut bi ak ci ban conseil nga koy jox loo xam ne dana tax mu gën a ci loolu deuxièmement est-ce que état pare na pour jàppale ko ci école bi. waaw man euh, pare qui kii pour ma dimbali ko parce que. Euh, sama métier mooy euh, enseignement enseignement mooy sama métier bi et puis euh, boo ubbee une école il faut nga am temps bala ngay demander état ñu ñëw di def lu ñu wax accréditation programme yi parce que dañ ñëw di xool est-ce que fi nga nekk locaux yi conditions réunies pour ñu ñu ñu jox kii. loolu day day day après et puis bala boba, ñun euh, dañu taxaw di di pousser ko di dimbal ko parce que man xam naa ne le mu am euh, ambition le mu am jarna ko ñu ñu ñu ñu jóg di ko euh, jappalé waaw. tout à fait merci professeur. merci beaucoup merci. Euh, <laughs>